Alioune Seye numéro de moom la seen bës tey amal jotaay ngir waxtaan ak moom ci wàllu làmb ak ci combat bi nga xam ne jóge na ko barki Demba Ndiaye digganteem ak Quench di ko félicité bu baax ci ndam lu rëy loolu mu am ndax champion la mérité na lu ne wax dëgg yàlla ndax euh, baaxaayam euh, oyofam ak yu mel noonu ndax yaakaar naa ni yàgg na ci yoon bi xëy na waaye itam noonu la ko yàlla bëggee. moom la rédaction bi amal jotaay tey ngir waxtaan ak moom ci làmb jooju waxtaan ak moom tamit ci làmb yi nga xam ni géejawaay génn na ko ak ci wàllu actualité ñu nuyu ko bu baax moom Seydou bàyyi ko mu nuyu ak mbokki internet yu ko suivre. waaw Mouhamed maa ngi lay fay. gannaaw baat auzu billaahi mina seytaani rajiim ñu sant yàlla julli si yéen rek. Mhm. sant suñu ñaari waajur. yaaru waajur bu góor bi jiitu suñu borom xaale ko àjjana yi kawe ak bépp waajur bu jiitu rek ak bépp doomu aadama bu jiitu rek suñu borom xaare àjjana di ñaan sama waajur bu jigéen bi ma fi desee suñu borom defal ko tawfiq ak taysiir amiin incha allah bu fekkee suñu njëriñ ñëpp ak képp ku fi desee waajur di ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mm-hmm. fépp fu nit nekk di safoo Alioune Seye numéro maa lay bëgg di la jox sa wàccuwaay. Mohamed. Mm-hmm. waaw fatigué nag sonn. waaw tey moom dama laa fekk ngay dallu. waaw gën xam ma yàq dallu yi waaw. ci wàllu ngeen bokk yéen boobu bu ngeen soxlaa boobu. Mm-hmm. waaye sacrifié wu. di nuyu waa diaspora yëpp di nuyu waa Europe waa États-Unis du nuyu fépp fu Aliou supporter jox sa wàccuwaay bu baax baax a baax di la jaaral jàmm si dara taw fi. di nuyu waa Ekirwaar gi yëpp. wo coach Arouna Sall coach Zil Zil Dieng mhm. ah, la dëggee suma doom day maam bu liiru jaan mu ni maa géej waay di nuyu ñëpp cat ba cata waaw cat ba cat mhm. maa leen di bëggee bu baax a baax a baax di ñaanal majju majju mi nga xamante ni wax dëgg yàlla am na combat le 22 yàlla ko yàlla defal ndam moom macha allah mhm. ñaa bu ndox am na komba yàlla ko yàlla defal ndam bébé Zil Dieng am na combat yàlla ko yàlla defal ndam di encouragé Sa Thiès ci nga wax ne làmp la bisu bisu ñàkk du bisu am. Mhm. waaw ñu koy bu baax a baax a baax a baax. Mhm. di ko ñaanal suñu borom may ko xol bu yaakaar naa bi nga bëree. le vingt Balla Gaye yàlla defal ko ndam lu mhm. ba léegi yaa ngi toog di récupérer ah. demu goo entraînement wala commencé goo entraînement yi. non reprendre naa si semaine bii. reprendre naa si semaine bii mais dama dem ba benn Fatick ba ma a leen benn instant oh. ma xaw a tuuti dallu. mais commencé nañu entraînement yi. di ko sante yàlla rek di jaar yàlla may ji a wér. <laughs> gën a continuer entraînement yi. bu mhm. entraînement deret la nekk. amaana Fatick baa bi yëpp sax li ma toog te yënguwuma moo tax coono gi wàcc sama sama kaw. Mhm. mais loolu yëpp dañ koy sante yàlla rek. ok nga bëree matul sax 15 euh, euh, bëgg Alioune Seye lan la lu waral loolu. affaire boobu amul secret. ndax ku ne xam na ni préparation comme dafa metti. loolu dafa metti mhm. trop mais boo noppaloo benn kii. Euh, reprendre bi du nekk reprendre boo xamante ni da nga jëw dara sa bopp da ngay métier. Mhm. métier métier ba waaw. noonu lay demee quoi. ok physique rek ngay def quoi daw wala nga def yu ndaw rek. métier rek doo ko yëgee rek waaw. Mhm. am na solo nga jóge ci combat bu rëy sa diggante Quench. alors def nga ay interview yu bari wax ci combat bi wax ci préparation bi euh, wax ci njëlbeen bi mais Quench yaakaar naa ni. yokku na dara ci sa carrière ndax daan nga ko te daan nga champion bu mag koo xam ni 13 ans la toog daanuwul. daan Quench lan la la apporteel sa carrière. kaw doon sëy daan Quench am na lu mu apporteel yow loolu lu ne faa nga kenn jeew ko. Mhm. Quench nee fii moroom yëpp nanguñ ko jël. dëgg la. Hmm? booy yu bëri nanguñ ko jël boo waxee ñu ne lii wax la man moom yi gars yi daw seen yaram man loolu daw sama yaram maa ngi koy encouragé rek ci combat bi ñu jóge nii wax dëgg yàlla. Mhm. nit ku baax la ku oyof la ku yaru la maa ngi koy ñaanal yàlla may ko xolu muñ mu gérer bi ndax defet dafa metti mhm. da koy xool ku si nekk da nga xool si sa bopp rek yàlla may ko xolu muñ fexe yàlla may ko beneen combat dul waa géej waaye ko yàlla defal ndam loolu moom yéen naa naa ko. Mhm. ndax ku yaru la dal la waaw. jàngee ci moom. Quench li ma jàngee ci moom mooy ku dal la ku yaru la rek. nga boo xool si yaatu bi lépp ko doon wax naan ba. da ngaa yaru man loolu rek ma ci kii ma ko yaa gën a yaru foofu ndax wax dëgg yàlla da ngay dem di dit am naa combat ak kees bu yee booy boobu dafa yaru. <laughs> yéen saa ngeen ah yéen jaa yëpp samay mbër leen samay mbër ngeen. waaw xaw a faral ndax mm-hmm. la. Mm-hmm. la. Mm-hmm. ok nga bëreeg moom bëri bu rëy yàlla def nga jël ci ndam mais laataa bëri bi lu waral ngay choisir euh, combat yu métti yooyu ndax Quench mën naa ni sax toog na ab diir bëreewul gannaaw bu jógee ci Lac Rose ndax combat yu bari dañ ko doon wax waaye mujjul sotti parce que bëri mbëri su ma jum mbëri bëri dañ ko doon bàyyi xel waaw mais moog la Rouge ñoo bëre mais après dañ ko doon bàyyi xel parce que ñu doon dégg ay combat yu jaadu mais ba léegi taxawul gu loon non du bëgg lu bëgg combat yu métti sax mhm. xamal am moom man sama laa mootul yomb ci àdduna ndax ma fii ba xas ak kalaase la ba pare moo tax bu nu ma am combat bu yomb ngeen ñi dañ lay moytu ñeen ñi dañ lay xaw di ut ay prétexte di ut ay raccourci pour mhm. yéen jaar ci yeneen côté yi mhm. am si yoo xam ne dañoo bëgg lu yomb te fii lu yomb amu fi wax dëgg yàlla ñu loolu dañuy nekk si luñ nekk rek képp ko combat boo xam ne demancé nañ ko di nuyu sama au passage sama ménagère Abdoulaye Ndiaye di jaale Père Gasson moom laa waroon mhm. ah, di ko jaale makkan di ko jaale famille bi yëpp Père Gasson yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko xaare ko àjjana amiin incha allah makkan doomam di ko yàq yàlla ko yàlla may xolu muñ ci barke Seydina Mohamed. Mhm. taaw mu ma combat yu métti mais combat yi noonu la war a demee rek loo xam ne lu war a jaar sama carrière la rek ma jël ko. xam ne yow mhm. war a bëri ndaanaan la champion la ñu war a bëri ba yàlla def ci li mu ciy def yàlla may ma ndam dama koy sant yàlla rek. Mhm. ok nga daan ko euh, ñu ngi wax say combat. parce que danga danga da jóge ci ay kaaw yu bari ah 4 kaaw suma juumul gannaaw ba nga retourné woo. wala 5 la. macha allah. Hmm? macha allah <laughs> <laughs> jóge ci sos loolu lépp sant rek jóge ci euh, ak Quench ñu ngi te ñoom ñëpp ay champion lañ ci wàllu làmb waa ay ay ndaanaan lañ ay champion lañ mais tamit ñu ma nekk champion mhm. làmb la woon rek yàlla moo tombe loolu mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu ñuy liggéey la rek waaw comme ni ma koy waxee bu ñuy ñëw làmb moom lépp la ñuy indi bëri la ñuy indi xeex la ñuy indi mhm. ndax bëri dóor lañu wax waaw ku ne xam ne Alioune loo koy bàkkee mooy Alioune Seye tey bu ñu demee ba xam nga affaire yi bëri dóor ak bëri ak dóor lañu wax. Mhm. bu ci dóor yokkee tamit loolu day gën a neexal affaire rek. mais est-ce que nekkul dóor yaa ko ci yokk rek. ah yow dafa man dóor nga bëgg léegi ah. non non du loolu sax. c'est que adversaire bu nekk ni nga war a bëreeg boobu waaw adversaire bu wax dëgg yàlla yàlla dogal na mhm. mën naa bëre mën naa xeex. waa ñaar yëpp mën naa ko. soo ma songee bëri su ma la songee bëri. xam nga loolu tamit nekkul ne man xeex bi rek laa favoriser boo xoolee ci combat yi mujj yi rek laa. di mhm. xeex. Mhm. mais boo xoolee man sama combat boo ma si kii bëri rek laa favoriser mais combat loolu la laaj moo tax. Mhm. waaw bu naag la muy laaj. waaw combat bu nekk la muy laaj. est que nekkul poids bi nga bi nga yor léegi ci wàllu lam moo tax foofu moo tax bëri bi léegi doo koy faral di def lu bari quoi. non non du question de poids bi sax. ok bi gars yee koy gis rek. mais ba boo xoolee man poids bu bëri bëri bëgguma ko boo xoolee man damay garder sama benn ligne bi rek. waaw ndax xam nga poids bëri bëriwul njëriñ dijj dëgër rek moo ko gën liggéey lu wow koŋ lu feere lu xeeru raaj moo ëpp solo fu volume te waaw ba tax nag xam du poids bi lu lu ñu travail rek suñuy coach yu xarañ ànd ak job rek di liggéey loolu kese la. Mhm. Mhm. daan nga Quench Alioune Seye numéro 2 ci wàllu làmb dafa xaw a yéex naa ni parce loolu la bari jàpp ah. fi nga war a yegg ci làmb yeegoo fa. alors lan moo waral yéexaayu combat yi yow yéexaayu combat yi des fois ak lan moo waral tam ba léegi fi nga war a yegg ci làmb yeegu koo fa. ah loolu yëpp mbir yàlla la rek yàlla booy def nit dugg ci biir. Mhm. mbir mi gaaw yenn saa yi ma dugg ci mbir mbir mi yéex yenn saa yi dugg ci mbir mi du ci am résultat mais nag loolu daal ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ñu ngi def ay résultat yéex combat yi rek boobu avant dañuy wax ne loolu yenn yi si la. ok waaw mooy comme li wax rek. gaa yi bëgg di moytu. xam nga day waaw xam kenn mënu wax lépp. waaw te Alioune mu moom neexul quoi. waaw non non fii moom ñoo gën a xam ne dàq yu bëri ma xeex te bu dee doole mënuñu ma ko ëpp ñaari yoon mën nañ ma ko ëpp rek mais mënuñu ma ko ëpp ñaari yoon. Mhm. loolu kese la. Mhm. waaw. waaw laataa Quench amul keneen ñeneen ñun doon wax. laat laataa ngay jël Quench. oo ji ngeen wax am yeneen combat ji ngeen wax yeneen combat mais xam nga tamit jàmm ngay bëgg a yàlla moom mooy dogal xëy na Quench bi la dogal bu taxaw gisa tamit bi waree taxaw ba sax ma du sax ay ay ay ay heure waaw ndax li daan ku bëgg ku bëgg ku ko wétteel ak ku bëgg foofu daan boobu loolu tëj buddi bi du leen du leen boole. waaw noonu la demee rek. dafay ko mu bëgg combat aw ma combat gars yi ñu may proposé combat ñenn yi dañuy dagg ci biir daw ñii duñu dagg ñii duñu dagg mu nekk fi ba xam ne bi def ay preuve wax dëgg yàlla nekk champion ay moromam nag ba ko fi di ko daw. xam nga c'est normal ma jël ko. ndax que Zarko ko jëloon combat bi yàqu xaw ma. après ci lan la ko jox. moom la moom moog Franc lañ doon njëkk a dox sax. ba affaire xam nga mu toog fii nar ta bëri moom tamit li mu def noonu tamit dama ko ci encouragé amaana su ma jël woon tamit mën na bëri de mais mën na yéex quoi. Mhm. waaw bëri moom moom mu bëree man dafay dafay dama fay sës moo tax mu bëree ma ne te xam naa ne bu doon suwaaw suwaaw ak ak ñi mu àndal rek duñ ma duñ ma gaaw a jël. waaw waaw. Mhm. ok euh, am na solo euh, ban ban ban ban ban ban position nga ne ci wàllu làmb. Aliou Seye ban position nga bokk. ci wàllu làmb ñan ñooy ñan ñooy say moroom dëgg-dëgg ci làmb. non ñan mooy sama morom dëgg-dëgg dëgg yaa ko wax léegi mooy tey fi ma nekk fii du sama place. waaw yaa ko wax léegi dama affaire dafa retard. Mhm. kon kay ban parce que man li ma jàpp moom mooy ñoom Modou. ñoom Modou Lo ñooy say morom ndax ñoom nga débuté lundoo xam nga li gën a garaaw moom moom foofu yoo xamante ni waruma ko bëri mm-hmm. muy combat yu ndaw mais foofu ma nekk loo noonu foofu mosuma mosuma fa génnee sama bopp gëm-gëm googu moo ma bàyyi fii ci làmb léegi tey su ma doon keneen la bàyyi naa làmb yàgg mm-hmm. su ma gëm loolu sama bopp de foofu laa bokk yàlla xam ne bàyyi naa làmb ndax ma làmb dama cee dama cee daj ay coono bu ne di toog ay année balance ay année année balance bëri tey bëri ren saison benn combat toog deux année balance waat ñaari combat toogaat deux année balance boo xoolee sama carrière yëpp bëri sept toog naa ci sept année sept sept yoo xam ne année balance la mais nekkul yoo xam ne dafa tegloo quoi. Mhm. deux ans toog benn at. bëriwaat deux ans mhm. xam nga am benn combat boo xam ne at la. loolu moom moo tax affaire kii. dëgg la fekk na ma doon bëri comme ni gars yi di bëri di di am combat ci at bi ñaari yoon. kon ba léegi kenn waxu ko. Mhm. mais wax rek yàlla da ngay jaam da ngay bëgg mais yàlla mooy mottali. Mm-hmm. xëy loolu lañ yàlla tere dañ koy sant yàlla di wax alhamdulilah rabil alamin rek. waaw. Mm-hmm. bi nga bëree yàggul mais ñu ngi lay wax say ñu ngi lay waxee ay combat jamono ji di la wax ay adversaire non non gars yi fure bi waxaguñ dara mais maa ngi déglu rek comme boo defee li nga war a def moom da nga koy bàyyi li si def si loxo yàlla rek lépp loo xam ne yàlla cërale ma ko ci combat ci raisonnable ci kàttanu yàlla damay bëre man aw ma ci problème yooyu noonu. mais na mm-hmm. gars yi ñëw ñu bëri rek bu ko defee ñooy mën a mayante xaalis. te fii xam ne waaw mooy loolu. Mhm. Mhm. ko kan nga jàpp ni moom nga war a bëri ci wàllu làmb jamono ji. non ñu mën a bëril comme comme ku ma jëlul. Modou Mbaye maa ngi koy au passage wax na ko fu ñu di ku bëriwut ak man rek am nga looy bàyyi xel. waaw. mais bu dee bëre du lañ may ëpp du supporter lañ may ëpp du xeex lañ may dàq du tuus lañ may dàq du mobiliser lañ may dàq. Mhm. kon loolu aw ci sax xel jaar mais li ci des nag moom mooy. pour promoteur yi ñu am seen choix pour mbër yi ñooy bëgg a bëreeg yow wala ñu bañ a bëreeg yow mais daal sama bët fii nii ci kaw laa ko teg te dootuma bëri benn booy ci kàttanu yàlla. Mhm. dama doy sëkk sama carrière yëpp dama cee may chance kenn mosuma may chance na gars yi ñëw ñu bëri waaw. ok yaak Franc combat la. waaw loolu yëpp gars yu gars yu koy wax nii rek. mais man maa ah, gars yi koy wax mais ndax combat la laa wax kay. loolu la man xam nga mënuma toog fii daal ba sama waa Franc du combat boobaa xam nga gars yi ni mu la mais man bëgg naa lu gën Franc. lu gën Franc. waaw. est wax nii pour teg boo xam ni wax naa la ko léegi. waaw weexal sa nawle du tax nga ñuul. Franc tey su waroo mhm. la mais sañ naa bëgg lu gën Franc kay. loolu ma si droit. mais loolu tey kay du stratégie ak nangam nangam su mu fekkoon du ma bëggee bëgguma Franc wala du ma bëri moom dama naan la bëriwu ma ak moom yaa may dégg mhm. te loolu dama ci am plein droit comme ni ci keneen am droit keneen ak keneen am ci droit mhm. mais taxawu ma nee na bëriwu ak moom mais dama ne su ma amee lu ko gën lu gën Franc lu gën Franc booy Eumeu Sène Eumeu Eumeu mi daan Sathiès waaw Eumeu mi daan Sathiès maa ngi koy félicité dëgg yàlla ndaanaan la champion la mhm. war Eumeu Sène Reug Reug Boy Niang foofu am naa fa combat Gris Bordeaux Ama Baldé foofu am naa fa combat ñi am si combat dafa bëri mais ba ay toog di xaar rek ndax yàkkamtiwuma dara dañoo war a bëri dëgg neexul ok ok am na solo euh, balaa maa ñëw ci surtout Samba Xoyaan bi fi mu ne comme bëgg nga ko moom danañ ci ñëw incha allah digganteem ak euh, Sa Thiès keroog yaakaar naa ne suma ma jumul yaa ngi woon esaat wala boo fa wala boo fa demul it seetaan nga combat bi. alors euh, noo gisee boobule komba jeexantal gi. waaw combat bi de combat bi combat bu neex la woon. Mhm. wax dëgg yàlla di félicité waa Alburax. dëgg yàlla làmb ji neex na làmb namoon na namoon na lu mel nii daal. làmb ji bi fees. am ambiance yëngu neex. su mhm. loolu dem dafa fekkoon sama nijaay gaañu. ndeysaan waaw wax nga dëgg mhm. mais xam nga man làmb yooyu noonu loolu xam nga te ñëwuma tamit. waaw day xam ne am na lu xew. dëgg la mais loolu yëpp sant yàlla rek. loolu yëpp sant yàlla la def na li ko war làmb ju neexoon la mhm. ku nekk ñëw nga ànd ak say mbokk yàlla dogal Eumeu Sène dans Sa Thiès ngay encouragé Sa Thiès di félicité Eumeu ki ko daan war na koo daan mhm. ndax bëri na fi ndaanaan bu ne Sa Thiès xale la ñàkkagul dara dafa diir la Eumeu moo ko bay saa bu bëre mhm. tey jën jeexul géej day continué waat entraînement rek daan la daa tax àdduna bi yem fi da ngay liggéeyaat joxaale beneen combat am jàmbaaru daan rek. continuer mhm. loolu kese la. mais Alioune Seye keroog ban nga gis. Sa Thiès bu gis. Mhm. Sa que nga koo gis. mën nga koo gis est-ce que pare na réellement maanaam Sa Thiès boobu nga gis mooy li may wax rek. gis mbër bu daan lu ma sama benn waaye doon waxtaan mbër bu daan moo raw Poul Mbalit waaye lu ñun mbër yëpp nangu nañ loolu gis soo daanoo. Mhm. mbër bu daanu yaa cuune mbër bu daanu yaa amul entraînement mbër bu daanu. yaa ragal mbër mu daanu yaa amul fit mbër mu daanu yaa bëgg jigéen mbër mu daanu yaa dul nelaw heure te fekk na li ñuy wax yëpp amul dara amu ci day gis nit bu taxaw nii rek ñu gisé mais hmm. loolu comme yaa nekk ci millier bi taamu taamu làmb bul bañ yooyu yëpp ku la xamul nga xam sa bopp bëgg nga jigéen ak yaa ngi entraîné entraîné woog doo nelaw heure doo nelaw heure yow mi sa jëm bopp xam nga ndax di nga nelaw heure wala di nga entraîné heure wala doo doo nelaw heure wala doo entraîné heure hmm. loolu yow la mais quant à ay ndam ay kii loolu su loxo suñu borom la ndax tey di nga gis nit mën nit foofu ñëw daanu chaque jour nga gis làmb ji wallaay la azim nit daan nit kee ke ñu daan la mu daj ci entraînement kaar bi kaar bi kaaraat ki ñu daan ki ki daan daju ko ci la. Sa Thiès li mu war a def yëpp def doo ko. Mhm, mhm. làmb doog soo juumul doo daanu. waaw bis bi ngay daanu li lay daan yow yaa koy def. dëgg la. Mhm. waaw da ngay juum daanu loolu la dafa juum ci bi bëre daanu ki nga daan war na daan jeex na. nga continuer waat entraînement yi te xam ne yeneen i ko yaa ngi ci kanam. <laughs> ñàkkul dara xas na bokkoo pare. waaw xas na bokkoo pare xam nga la moo betti ñàkk bokk ak bëgg a bokk mais boo xasee bokkoo pare jaana. waaw waaw. <laughs> mais mënul ñàkk nag euh, mbër mu mbër mu ñëw nga gis ci moom parce que bu daanoo di nga gis ci moom njuumte goo xam ne tey waral na daanu gi wala da gis ci moom tey loo xam ne tey. Euh, tax na tey mënul nekk wala comme Sa bi ñu daan gis. dafa mel ni sax chroniqueur yi bay dafa mën nañ ñu gis ñu Sa boobu bi daan ñëw di di di attaqué bi daan ñëw di koñe bi daan ñëw di gañe yu mel noonu. xam nga tey. waaw sport ñiy dudd sport te xam sport laa wax de. waxuma la mhm. kuy ñëw daal ay kii daa am mën ni nag daal nangam. dëgg la nit di dina am bërit mhm. mais làmb ju nekk di koy bëri ji ji ji dudd bëri te xam bëri wala ñu dugg sport ñuy dund football xam nañ ne am na équipe yoo xam ne da leen di am na équipe yoo xam ne ci flanc bi football ak ñoom am na équipe yoo xam ne da ngay di xaaju attaqué la nga contrer làmb mm-hmm. nag koo dégg ñu daal la ay benn mënit bii la am su ko deful dàggam. Mm-hmm. ku ñëpp xam doo foo jëm doo yegg. waaw loolu gars yi il faut koy bàyyi xel. làmb ji xëy ji nga xam ne encouragé nañ ko xëy na ñooy ko teeloo da ko xaaral dëgg la mënoon na dem mënoon na dem jël bi gën a jaaw mënoon na dem daan. Mm-hmm. yàlla rek moom moo xam. yàlla rek moom moo xam mais dafa làmb bu nekk ak ni ñu ko war a bëree. am na si làmb yoo xamante ni comme yaa ko wax sànq làmb yoo xam ne tey xeex moo la ciy génne. waaw am na làmb yoo xam ne song moo la ciy génne am na làmb yoo xam ne xaar moo la ciy génne. Mhm. am na si làmb yoo xam ne yooyu foo nga dem song ji moom moo la ciy génne mais làmb bu nekk nañ ko war a bëri mais toog daal ay diw bëri bii la am da koy def am na si yoo xamante ni. Mhm. soo lee ko defee dootoo ko dolli. te Eumeu Sène nekk na ndaanaan ndaanaan boo xamante ni amaana sama xel bokk li ma jàpp. mu yoroo préparé préparé saa ci xëpp ci kawam mu am nee na nu comme Sa Thiès bu doon xëpp ci kawam daan ko jël bu rëy loolu la demee. Mhm. làmb bu nekk nañ ko war a bëri. Mhm. làmb bu ju nekk nañ ko war a bëri. mais ci bëri bi amatuñ njuumte. waaw am nay am nay ay am nay erreurs yi nekk ci biir bëri bi am nay erreurs yi nekk ci biir bëri bi mooy li ma la rek boo mhm. juumul doo daanu waaye ku ne xam na ne Sa Thiès ndaanaanu bërekat la champion la gaynde la. nit jekku na ko fi fu gën a sori fi ko ëpp seet jekku mu daan ko. fàttali ko digganteem ak Zarko waaw waaw dem na wóor ko ndomb la la mën na la sax tam dëmm mais soo bëree daanu mooy yaa mooy li may wax rek yaa xamul dara yaa entraîné wul yow yaa juum hmm. loolu kese la hmm. mais def na erreur bëri na yow ban erreur nga gis ci erreur yi ci erreur bu mu def non première première te loolu sax loolu ay occasion la rek ci biir bëre hmm. ay occasion la ci biir bëre bi ko Eumeu Sène soogee ba ba surux loolu bu mu suruxee foofu doon rek Sa Thiès amul mais làmb yow mi nekk ci si biti yow mi nekk si biti li ngay gis ki nekk ci biir du ko du ko gis du ko gis <laughs> uh-huh, uh-huh. wala dina toll situation yoo xamante ni dina ko bëgg def te du ko mën a def te ko mën a def ñi may ñiy bëri hmm. xam ne li may wax nga xam ne li di yenn saay ngay bëgg a def benn ak boo xamante ni sa sa sa sa état physique du la ko may wala sa coono yaram du mën a def loolu wala xam nga hmm. am lu xew ci biir kii bi hmm. foofu rek dèjà benn la beneen bi moom mooy bi nga yeggee fu sori. Mhm. foofu noonu moom moom bi mu jàppee ndigg li. waaw bi mu bi mu takkee ci digg takkee ndigg li waaw. takkee ci digg li. Mhm. foofu noonu foofu noonu du woon yoon muy dóor ndax dóoroo yooyu amul du def def benn effet. ok du def benn dóor yooyu noonu amul fu mu nu mu mën a maa gaañ ëmb seen ndax bi ñuy dóor ëmb seen ngi dugal bopp ay coup bopp moom. Mhm. yëngalul ponkat mais instant woon noonu woon fexeen nu mu rëccee ba jéem a jàkkaarloo ëmb seen jéem a jéem a tàn jéem a càntale rek. Mm-hmm. waaw mais mm-hmm. làmb nag moom boo jubul doo daanu. boo boo waree daanu li lay li lay daanu yaa koy def te Eumeu Sène mënoon na takk fu gën a sori foofu sax mu daan ko. Mm-hmm. mooy li ma la wax Sa Thiès nit yegg na ko fu gën a sori fi ko Eumeu Sène yegg mu daan ko. dëgg la waaw. mais Eumeu moo nekk ndaana loolu tamit il faut ñu màng ko waaw. lan moo waroon ne ëllëgu Sa ci ci ëllëgu Sa Thiès ci wàllu làmb ndax. ëllëgu euh, ëllëgu Sa Thiès daal. ndax fi mu fi mu waroon a yegg est-ce ko. loolu de bi ngi dépendre ci moom wuñ ko de Sa Thiès déggul ma a bokk boo metti mais Sa Thiès bokk na pare ku dem ba bëri ëmb seen bokk dem ba bëri booy yaa te booy yaa ci mag ji lay bëri léegi bokk nga xëy na kay da nga daan yoo xamante ni da koo ñàkk loolu booy xaw a sooxe mais Sa Thiès day amaat combat day amaat ci combat yi Sa Thiès dootul bëri benn booy ci combat yi ci kaw yi lay bëri kon kay loolu amul problème na continuer entraînement yi rek. Mhm. loolu kese la. parce que boo xoolee combat yi ko ñàkk a. waaw loolu moo loolu rek. <laughs> ko dara mi ngi koy bëre mi ngi koy ñu ngi koy daan mi ngi daan xëy na saasa moo jë mu mu war a génn ci examen yooyu rek mais yàqu si dara. xale la mhm. day entraîné ku jëmee entraînement la ku fonk combat la. bu combat taxee da ngay gis saa ci nga xam ne kii dafa liggéey. Mhm. waaw ku dul fooyee combat rek da ngay xam ne da ngay juum rek daal waaw. Ah. Hmm. Eumeu seen daf leen a sonal léegi ah. ah. daan na fi Lac de Guiers daan na fi Balla Gaye ñaari yoon daan na fi Sa rakk ji sonal na leen ah. non sonal na Boña dañ mooy meeru Pikine waaye tam ma tam bu ci bokkee. loolu la naan Pikine moom géej ay ay waxi supporter la ak waxi kii dëgg la nag dëgg la nit ku nekk da ngay am foo xamante ni da ngay nekk seen kii nu mu tuddati seen. waaw bête noire. waa seen bête noire. Mhm, mhm. loolu yàlla moom moo koy def. Mhm. du dëgg leen a bët de mais sens la nga dugg ci benn gox daan ña fa nekk ñëpp loolu loolu sens la loolu dañ ko koy nangul am la wërsëgam la loolu dañ ko koy nangul bu baax mais du question da ay solal la leen nangam nangam mën nga ko tudde tamit solal ndax li nga wax ni loolu la def tamit mu ngi bëri di daan loolu la yàlla loolu la yàlla damm ci jëm loolu moom nekkul lu metti de pour man <laughs> waaw ni mu ko defee nii noonu la ko mbëri géejawaay di defee Pikine noonu la ko mbëri géejawaay di defee Parcelles noonu la ko mbëri géejawaay di defee feneen mhm. kon bu ñu ko mbëri defee tamit loolu garaawul ok làmb la rek waaw sport la waaw yow mën nga ko téye yow moom ëmma ah surtout Samba Koyaan bi mën nga ko téye ku dul ëmma laa lay mën naa laa téye ñoom ñi mbëri yi nga xam ne woo war naa bëri waaw koo si fa nekk yaa sa Aliou Seye taxaw ne ñoom xam ne ndax mën naa leen daan wala mënu ma leen daan nekkul damaa kontaan di wax nii rek wala ma bëri wax rek di wax nii wala caméra yi tiim wax nii ñoom si seen jëmu bopp ku ma génne alañ see diw taxaw na wallaay la azim su la dix nit waxee yaa mën mhm. di nga tab di nga tase sa cinq supporters yu yoo xamante ni yu yu maanaam yu dëgg yóbbul fenn ñu ne la yee eh, sa waay komba bi foog am nga komba loolu maa la ko wax waaw waaw waaw parce que ci dóor yi lañ koy teg taay moom li ngay dóor mbëri moom doy na waar lool azim du mën li ñu mën mhm. am na si yoo xamante ni mën naa sox ñoom lu ñu mënul looloo gën a dee du wax du wax du pour jaay sa bopp wala danga dama mën naa sax ñoom lu ñu mënul mais yegg fee fi yàlla moo koy nakkaale doomu aadama mais maa koy sante yàlla ndax comme li ma koy waxee am na si yoo xam ne ñoo commencé na woon yàlla jëlee la leen fi te gënuma leen ndey gënuma leen bàyyi mm-hmm. yàlla leen yàlla yërëm te jéggal mm-hmm. am si yoo xam ne ñoo doorandoo woon ñi nekkatuñu mbër ñu ngi si leneen yàlla boo fi bàyyee ba léegi may kuti kuti yaakaar ne suba affaire yi mën naa ñëw loolu dañ koy sant yàlla te xam ne dara jeexu mm-hmm. waaw ok euh, am na solo diggante Balla Gaye ak euh, Tapha Tine mën naa ne sànq laa wax ndigal sax ma ne ko face to bi dafa dem ba jël sax bësu bësu combat bi. TikTok bi foo tourné rek face to bi la ñuy waxtaanee état de forme Tapha Tine bi Balla gay bi taxawaay seen taxawaay ñoom ñaar ci biir géew bi keroog noo gisee euh, ñaari mbër yooyu. waaw waaw ñaari mbër yi ñoo tollu noonu. waaw macha allah seen dayo seen dayo moo toll noonu. Mm-hmm. Balla gay nekk ndaanaan nekk champion. ku xam Balla Gaye xam ne Balla Gaye moom day jaay combat wu neex. Mhm. gisoo ko keroog affaire yi yëngu na neex na. Mhm. te c'est normal champion la Tapha Tine champion la ndaanaan la xam nga jaari ndaanaan yu war a dajale te ñaari ndaanaan fu ñu dajee moom il faut coow li bari. Mhm. waaw. loolu rek la. waaw mais Tapha Tine noo ko gisee. ah état de forme bi mu yor jamono ba tiital ba tiital xa waa géejewaay yoo ah. xamante ni mbër yàgg na fee bëreeg mbër ëppee ko. 15 kilos wala 25 kilos. mbër ma mhm. daan ko loolu di si dara mais tamit liggéey da loolu moom dañ koy nangu à 200 pour cent liggéey da ba am état bu baax mais liggéey ba am état bu baax tekkiwul na yaay daan de. Mhm. am nag sensu daan. Mhm. mais liggéey ba am état bu baax tekkiwul na yaay daan ndax tey liy daan ak lii lii liy daan ak lu kii loolu ci jour ba leer waaw wax naa la ko de nit dina ñëw entraîné rek loolu ak loolu. ñëw am état bu baax nga ñëw ñu la xool la nga xool fooy tëdd voilà. mais bi mais daal en tout cas ñu ngi ñaanal Balla Gaye ko ndam. Mhm. état bi Tapha yor waaw. macha allah super forme. amul kenn amul looy teg ci état wu Tapha Tine. ok di ko am loo ciy laab laabee rek daa am lu nekk soxal. dañ ko koy baax mais làmb leneen la. waaw làmb da bëri nay mbir moom. li mu làmb rek ba bëri na moom waaw. ay kërëb kërëb mais du tee. ay champion lañ ay ndaanaan lañ di ñaanal Balla Gaye yàlla defal ko ndam lu sedd guy te gaaw. Mhm. waaw est-ce que wutewul ñaari état yi entre 2012 li fi Tafa indi woon 2012 ak lim lim fi indiwaat 2024 wute na de. non Tafa boo bëggee dégg-dégg à chaque fois combat mu ngi progressé mu ngi yokk niveau bi mu ngi defar. mu ngi kii. Mhm. Mhm. ndax xanaa waaw presque si loxo yi mu nekk léegi. yow gaa yi di waxee boo gën ci loxo yi mu nekkoon. waaw <laughs> waaw instant bi boobu wax gaa bawal yëpp gédde jàppale ko xëy na tamit lool la manqué woon moo tax heure bu géddee dangay xam ne kii mhm. fonk na li muy def bëgg na li muy def donte yi mu doon def sax bëgg na ko mais yii nii day xam ne nekk na ci ay loxo mhm. waaw ok Balla jamono ji noo gisee est-ce que combat bi lu mu war a perte la moom Balla parce que jóge na ci combat boo xam ni waaw ko perte waaw ko perte waaw boo xam ne la war na ko bëre amaat yeneen combat yi mu yu mu ci war a toftal boo xoolee def na lu ne ci làmb jóge ci defet soo mhm. juubu la mook booy ñang waaw mook booy ñang mhm. mhm. xam kon defet rek kon victoire rek moo koy arrangé kon yàlla ko yàlla may victoire rek may ko ndam lu sedd guy te gaaw waa ci làmb yaa ba koy yàlla di ko ñaanal yàlla defal ko ndam lu sedd guy te gaaw parce que tey làmb neex la wax dëgg yàlla parce que tey dañ ne buñ ko bu ko ñàkkee moom mën naa arrêté làmb ji ndax euh, amul amatul keneen ku fi mën a bëreel. non wala sax boobaa ay tegale boobu yàq carrière am lay def ndax day fay tegale ay defet dafay defet te baaxul ci mbër moom mu toll noonu loolu du yàq carrière loolu du yàq carrière Balla ñi koy daan ñëpp war nañ koo daan wanewul ñàkk jomit wanewul ñàkk ki yaafus day bëre ba daanu ci biir bëre kon tey su bëree tafaatin ñu yàlla dara yàlla tere bu ko tafaatin daanoo tamit du tee yeneen ji war a combat yi war a bëre bu ngi fi su fekkee moom ci moom lay dépendre rek. Mhm. nag tamit nit doo ko ne ko far force lii ngay def wala dàggam dàggam. mooy xool ne war naa mën a continuer mu continuer mooy xool ne kat lii arrangé tu ma ma bàyyi mu bàyyi waaw. Mhm. naka la mën a def pour génn ci combat boobu Alioune Seye. non li mu war a def li mu war a def pour génn ci combat loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy liggéey la lu ñuy waxtaanee la rek suñu biir comme ñoo bokk loo xam ne bu ñu ko séddee. Mhm. ñu xool rek boole suñu doole boole suñu xalaat rek loolu kese la.